salaamaaleykum téléspectateur leeral Leral TV ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay naan leen bu ngeen ñu gisee tey jii ñu ngi fii jàkkaarloog li nga xamante ni moom mooy jumaa ji fii ñu taxaw nag ñu ngi taxaw ci ginnaawu benn garab garab gi nekkul benn garab bu dul garab bi nga xamante ni Serigne Fallou fii la daan feexloo bi ñu commencé travaux yi ngeen di xamante ni moom mooy travaux jumaa ji fii la daan feexloo et puis fii la daan toog di jàng alxuraan bu daan di jàng alxuraan nit ñi aussi saa yu ñu paree ku daan romb fi ngay jaar ñëw dékk ko say loxo mu defal la ay ñaan ñu ànd dem woon leen euh, pa bi nga xamante ni moom moo géré fii mu expliqué ñu wax ñu lan moom mooy njëriñu garab gi ak ñoom naka lañ ko fi fekkee ak nit ñi nga xamante ni ñu ngi koy ziyaar ban yaakaar lañ si am. salaamaaleykum papa na ngeen def euh, tur bi naka la. kii de Modou Boussa lañ koy wax. Euh, sànq ba tey ñu ngi gis ay nit di ñëw ci garab gi di ñaan seen soxla gis nañ ne aussi ñu ngi ñëw vers yow nga leen di expliquer ñu bëggoon xam garab gi euh, kañ la fi ak lan la wundu garab gi moom kañ la fi mënuñ la cee wax benn taarix ndax ñun dañoo judd fekk ko fi liñ ci xam daal mooy mag ñi wax nañ ne fii sëñ Fallou daf daan toog di jàng alxuraan bi ñuy liggéey jumaa ji bu nit ñi ñëwee mu leen di ñaanal toog googu mu fi daan toog nag moo tax taalib yi ñëw di ci barkelu loolu moo sabab may tere nit ñi pour ñu ciy ñu ciy dugg ak seen dàll ngir ormal ko loolu daal xam nañ ko ci ci taarix bi. gis nañ ni aussi képp ku fi ñëw dangay ngay barkeelu ñu bëgg a xam barkeelu bi euh, naka la waaw barkeelu bi de mooy nit moom foo xam ne sëriñam daf daan toog ñëw fi di barkeelu dafay nekk loo xam ne euh, xiwal lay doon ci moom ndax sa sëriñ fu mu daan toog di jàngal xuraan di fa ñaan soo ñëwee war nga faa toog di fa barkeelu. Euh, loolu rek lañ ci jublu ak it bëgg ci ngërëmal Serigne Touba dong ak ngërëmal sëñ Fallou ndax nit moom lim yaakaar rek moom defe na ne ci la aajoom nekk ci la aajoom di fajoo it te mooy dëgg loolu moo sabab nit ñi ñëw di fi ñu ngi gis nit ñi di fi ñaan est-ce que yéen ñi nga xamante ni yéen ñu fi jiitu yàgg ngeen fi est-ce que yéen a ngi ciy gis seen bopp bu ngeen ñaanee ndax seen aajo yi ñu ngi faju waaw waaw ndax nit lu mu gëm ñaan ci yàlla yàlla mën na ko caa fekk si fajal ko soxlaam. ndax ñi fi ñëw di ñaan yëpp kenn ku ci ne la nga doon ñaan bu nga ñëwee beneen màggal joxe nga ci résultat ndax xam nga ndax ñaan nga nangu na wala nanguwut doomu aadama moom li mu li mu li mu rek mooy ñaan ñaan nag boo koy def dangay ngay ñaan ñaan ki nga wóolu ki nga yaakaar it ngay ñaan ndax koo yaakaarut ba mënoo koo ñaan ki nga yaakaar rek ngay ñaan mu yàlla subhaanahu wa taala eh, ñu ñaanal sëñ Abo Baraka mu yàgg fi lool te wér ñu yàgg eh, teewee màggal gi. te lépp luñ fi ñaan rek sa borom nangu ko ñu amee ci ngërëmal Serigne Touba amee ci ak yokk seen télé bi it yal na yàlla yokku leen te barkeel leen. comme yaay booy. Euh, est-ce que mën nañ xam lan moo leen fi andi parce que gis nañ ni yéen a ngi toog ci suba ak léegi yéen a ngi ziar garab gi ñu bëggoon xam ban yitte ngeen fi am ba tax na ngeen toog ak lan moo wundu toogaay bi. dëgg la li ñu laaj kontaan nañ ci torop doomi jàmbur ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yal nañ fi yàgg ñëw di laajte yoonu Sëñ Tuubaa bii ak fi ñu toog sunu mbégte. mbégte mi moom mu am na commencement waa amu fu ma yem parce que sëñ Touba moom lañ ko bëgg ba jeex tàkk da léegi laay wax ak sama maire bi ma ne ko sëñ Fall bu mosee toog fii jàkkaarloo ko jumaa ji dina xam ne papaam liggéey na bu baax xolam dina seet sama xol fees ma bëgg a jooy ma bësante sama xol xam ne sëñ Touba liggéey nañ loo xam ne mënuñu koo fay yàlla mi am pay yal na ko yàlla fay ngeen gi fay ci jëmi Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yow itam maa ngi lay ñaanal nag doxa ji bëgguma mu gudd ndax keneen da cee soxla maa ngi lay ñaanal yow itam yal na sa taxawaay yàgg li ngay def nii yal na sa taxawaay yàgg nga di ko liggéey est-ce que yàgg nga fee ñëw yaay booy waaw yàgg naa fee ñëw ba may xale ba tey tuut tànk daana sama waajur di màggal si ma yàlla def ma mën a passé sama bopp màggal si di màggal si màggal bi jotee te màggal si ma sax kon garab gi mën nañ wax ni eh, def na fi ay ati at ah te yaa ngi ciy gis sa maa ngi ciy gis sama bopp saa bu ma ñëwee bala ma ñibbi dama ñëw ba ci garab gi siyaara garab gi ñaan fi samay soxla su ma ñibbee di dinaa xam li ma gisoon Touba dinaa xam ne njëriñ la man xam naa ne su ma ñëw Touba ba ñibbi damay xam ne yokkute laa fi jëlee waa jëlewu ma faa ñett di ñaanal na képp ku fi ñëw rek yal na fi jëlee yokkute ku ñëw ngir Serigne Touba rek jaajëf Serigne Touba li ma liggéeyal yàlla liggéeyal ko Rasulullah yal na nga jëriñu man loolu laa ñaan.